yo yo sama gars yi 100 pour cent Doudou Sané Ngor ke wongoy ta le 4 tout Sénégal les fans de Doudou Sané 100 pour cent Diofior campement Ndangani Yayem la Djirol fop fop marqué tout voilà Bassoul Bassar Dionewar bi bi da cee war a ñëw waaw gis nga bi Khadafi <laughs> ah combat bi da nga war a ñëw ñu ngi woo ili yëpp mar mar sulu mar looj mar faafa wàññi wàññi waa Jirnda <laughs> sama gars yi seex suñu cat bi. ñu lay si combat bi Fa Mara borom baasul. Mm. combat bi seen combat la nekk nag Kaolack euh, Sokone Passy Kër Ayib yëpp. si waa Fissel nag ñu ngi ñëpp bàyyi ñu kenn waa Mbella Kadiaw waa Poxam ah? nga dugg noonu dugg ñoom kii euh, waa Jaxaw dugg yëpp ba njaare